bisu 18 safar bu dilsee fekk fan ak juróom ci safar bu dikkee na ngeen ma santale sa yàlla sama borom bi lan moo taxoon sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala am suñ borom da ko defal loo xam ne dafa rëy ci moom lool boo leen ñaan li daan ñaan suñ borom subhaanahu wa taala dafa koo may ba mujj suñ borom jël lépp daa ko jox ba nga xam ne képp ku bëggati dara da nga ñëw si seen xam ne radiyallaahu taala moom mu jox la mbir yi loolee nag moo taxoon mu sàkku ci mbooleem jullit yi waaye rawati murid yi ne fu fukk fan ak juróom ci desee ci safar na ngeen ñëw ngeen eh, sant la ma yàlla saa borom Cheikh Mamadou Fadil Mbacké radiyallahu taala anhu ku ne xam ne ci ak toogaayam moo ko gën a yaatal daan ne fu murit nekk na ñëw ñu def ko fii ngir mu am li mu bëgg ca bu amee li mu bëgg ñun ñii dinañ am li mu bëgg loolu nag sant sant la yàlla Serigne mooy lan buñ jàpp ne tëdd di nelaw la nañ ci jiital li Serigne Touba bëggoon mooy taxawal lislaam di jàng alxuraan di jàng xasida yi tey julli ci waxtu yi waaye itam di mboolem loo xam ne ak lu yàq la ñu moytu ko lépp loo xam ne luy defar la ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu def ko. yéente jam werante yi xuloo yi ak mboolem naqar yi bu agsee bis bu agsee kenn ku ne loo ne war nga koo fàtte te xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala moo anu ay kenn ku ci nekk la nga am murit moom bul def ne la am mukk yaa ko may sa bopp kenn ku ne la am Sëriñ Tuubaa moo ko jox muy sa alal. muy sa judd muy muy muy sa wér muy lu mu mën di doon ndax kon nag bi sa ndikkee la am lépp nga ko jox ba mët sëkk sa alal jëli yàlla jox lépp loo xam ne mën naa berndeel loo ci man def ko lépp loo xamante ne bii mën naa tax nit. Euh, ak dikkam wala ak demam yomb wala ak nekkem yomb na ko def moo xam ne ko yónnee paas ne dem nga gunge xam dafa ñëw nga jox ko mu lekk moo xam ne nga ànd ak moom gunge ko moo xam dafa réer nga teete ko yooyu yëpp ci xeetu cant yàlla la yëpp ci xeetu cant yi la kon nañ ko bàyyi xel bu baax a a baax a baax a baax a baax soxna yi itam ñu itam ci ne sant yàlla li Sëñ Tuubaa nañu xool bu baax la soxna Jaara la soxna Jaara moom nekke woon daa doon sol sol gu jot di jàng alquran di siyaara borom xam-xam waaye maanu lool waaye nëbb cërëm yëpp waaye ba tax lii ko suñu borom subhaanahu wa taala dénk ba dénk dikk ñu ne na bàyyi xel xel xel ci loolu ci xam ne dëkk bi dëkk barkeelu la dëkkub bu ñuy fare ay bakkaar la fexe na boog bu kenn dikk nag di fi génn di yóbbu bakkaar ndax kat ku fi indi ay jafe-jafe suñu borom suñu borom mën na koo saafa ci dara gisal xadim waaye ku fi ñëw ba noppi topp sa bakkan wala nga nekk sa jikko nekk fa loo xam ne bokkut ak ndigal sëriñ bi ah bu la lu la fetal kat feneen mënut a sete fenn fenn fenn nañ ko bàyyi xel bu baax nañuy ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñuy sensibiliser mboolem askan wi safoor si daw ndànk dal ndànk client yi nañ ànd ak ku yor sa bagage na ci bind ni numéro téléphone ku yor xale na nga ko bindal numéro téléphone képp koo xamante ne bii itam yaa ngi ñëw na nga xam li la tax a jóg ñëw ci dal yemal fan la yemloo bu su waxtu ñibbi jotee nga ñibbi ñu saafante lool daal mooy li nga xam ne mooy dëgg dëgg dëgg magal gi waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi ko ci dugal yoo xam ne bokku ci nañ ko bàyyi xel ca lu bari nag ñu ngi koy bàyyi xel ci yoon yi waxtu wii ñu ngi koy génne te nit ñi bàyyiwuñ xel te war nañ ci bàyyi xel am na ay modd yu ne xewal yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel muy jigéen sol caaya te ku ne xam ne lislaam dafa aay loolu jigéen wurtu sol ma maanaam yërey góor góor wurtu sol yërey jigéen loolu bàyyiwuñ ko xel te mi ngi bari lool lool lool ci modd yi nga xam ne mi ngi génn lan ñu ne ay Baay Faal la déedéet kër Cheikh Ibrahima doo fekk jigéen ñu sol kër Cheikh Ibra doo fekk góor gu sol mbubul jigéen kër Cheikh Ibra ay soldaari Serigne Touba ñu sol ñu ñu ñu yor jikko yu rafet nangu liggéey jël seen al jëpp jox ko seen xaddim waaye nag bu fekkee ne da danga sol sa yëre jigéen ne man maam jigéen nga sol caaya sol sa mbaxana di danga dangani takku kurus ci baay fa laa ay caaxaan la Serigne Touba nekkuloon ci loolu tey nekku ci ëllëg nañu xam jigéen na sol lam war a sol muur boppam muuri awraam waxtu julli jotee nay julli fekk mën na ko